livraison nekk na liggéey bi nga xamante ni ndaw yu bari jël nañ ko rond-point jet mu ngi fees dell ci ay moto ñoom cak-cak yi fa fare nag ñu ngi dikkaat rek eh, ci li leen dugal ci li ni mel ama salugal ci livraison bi ah livraison bi damaa rek ma xam ne lii mun na ma génn ci rek loolu moo tax ma dugg ci quoi. njëg yi ñeenti téeméer la tàmbali waaye nekk na prix bi nga xamante ne nakari na sàmm ndax rek lépp client bi la dépend. livraison boo nee biir Dakar fii am na ñu lay ñu koy demee 2000 maximum daal muy commencé ci 2000 jëm kaw sans dépense ci client bi nga am na ñoo xam ne peut-être nga leen 2000 nga dem. ñu kontaan ci gaawaay bi ñu may la foofu deux mille beneen deux mille wala am na ñoo xam ne sa dépend daal si client bi nga am. daw yi bëri. yaakaar moo leen ci dugaloon waaye jamono jilee liggéey doxul dara. livraison bi daanaka mun nañ ne euh, actuellement nii doxul parce que ñi nga xam ne dañoo nekk ci wàllum livraison bi donc bu ñu gisee ay auto police wala soi-disant gendarmerie taxaw si mbedd bi duñu mën a am accès pour daw parce que toujours suñu xel duñu mën a dal quoi. comprendre nga comme livraison bi li mu doon daw li ah, mu doon doxee avant ak léegi am na différence trop trop trop nag wax dëgg yàlla parce que bu njëkkoon mënoo toog euh, dix ou vingt minutes te amoo kenn ku la oo kaay livrel ma. ndax instant instant bi moom liggéey toog ba sonn ay deux heures de temps doo doo gis ko a yëpp. situation sociopolitique réew mi jamono jile impacté na leen ñoom ñi yëngu ci wàllum càq-càq. loolu moom pour man euh, préfet dafay nax boppam xam lu tax parce que gis nga manifestation manifestation bu amee. ñoom dañoo yaakaar ne xanaa borom moto yi ñooy manifester te pourtant borom moto yi amuñu sax jotu manifester nit bu nekk dangay ngay daw jéem a xool naka nga mën a jàppale say waajur kon nit boo xam ne am na esprit boobu noonu yaakaar naa waroo mun a jël sa xel naan damay manifester wala et cetera comprendre nga ñoom même chaque jour dañuy empêché parce que ñu génnee décret dañuy empêché parce que ñoom joxuñu wuti ji dépense ñoom nag ñoo ngi ñaawlu condition yi nga xamante ni moom la ñuy ci kaw tali bi fàttewuñu benn yoon wax itamit ci yokkute gasoil bi ci loolu ñu ngi woo nguur gi mu saafara li ni mel